jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu taamoo bàyyi xel ci seen web tv alazar touba point com fépp fu ngeen mënti nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm leen dalal jàmm ci seen euh, beneen numéro seen émission zone 28 euh, tey jii nag euh, ñu dalal ci nag gan gu nga xam ne gan gu màgg la yaakaar naa ne waxtaane woon nañ ci lu jëm ci wàllum sexualité ak li nga xam ne moo jëm ci wàllum néegu sëy tey ji itam moom lañ fas yéenee feddaliwaat gën ko xóotal gën itam yaatal li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo war a am ci biir yëpp ak solution yi nga xam ne ni moom la ñu ci war a indi ba bépp jafe boo xam ne doon na am ci biir néegu sëy yi euh, mu mën a tàggoo ak askan wi la temps que nag ñuy dugg ci biir waxtaan wi di xóotal loolu yëpp dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan sëñ Omar ñu ngi lay nuyu ñu ngi leen di fay aoudu min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أنزل إليه وما أوجدتم من العلم إلا قليلا ثم صلاته وسلامه على آله وصحبه وقديمه بكرة وأسهلا soxna Awa ñu ngi leen di fay di dellu di ndokkeel suñu bopp ci suñu teewaay fii ci Touba al Mahrousa muy loo xamante ne sunu ruux du ko miis mukk sunu jëmm du ko miis waxtu wi ñu fi yegsee rek day mel ne tey jii lañ fi njëkk a yegsi mm. ndax li nga xamante ne moom la ñuy moom la béréb bi def ci suñu ruux di ko def tamit ci suñu pas-pas di jiital ci suñuy wax euh, nuyu ak ziyaar ak ñaanal Cheikh Sidi Al Muxtaar mu yàgg fi lool te wér te àggale mébétam yépp di nuyu tamit ak ziyaar bàyyi si xaddi moom mi nga xamante ne mooy xalifa borom Daaru Muxti mi nga xamante ne mooy suñu bunt ci Sëriñ Tuubaa ak sunu wayjur sëriñ Cheikh Faty mi nga xamante ne ci ndigalam rek ci la ñuy dox ñoom leen di nuyu te di leen ziar te ñaan sama borom sàmm leen te aar leen te aaral leen njaboot gi baax na soxna jërëjëf sëñ Omar yaakaar naa zone 28 moom bëri na ci aspect yoo xam ne da ciy faral di dugg ci lu waa jëm ci dëkk bu sell bi Touba ak yeneen ak yeneen mais eh, li nga xam ne itam moom la askan di dundee parfois daf ñuy ñor moo tax ñuy dugg ci yenn thèmes yu mel ne eh, sexualité ak affaire yu mel noonu te biñ la dalalee fa li nga xam ne moom moo di dakaar tamit gis mm-hmm. nañu am solo gu émission bi amoon solo ñu bëri si mbokk yi di di di indi seen xol bu sedd ci waxtaan bi ba tax moo ñu indiwaat uh, li nga xam ne moom moo di uh, thème boobu la yaakaar naa waag léegi def na un ak lu topp mm-hmm. uh, léegi bu ñu bëggaa duggaat ci li nga xam ne moom mooy waxtaan boobu boobule mm-hmm. jëm ci wàllum néegu sëy mm-hmm. ak jafe-jafe yi nga xam ne moom moo ci faral di am ak yu mel noonu su ma la doon décrire loo naan la lan mooy lan mooy néegu sëy ngir ñu gën a dugg si biir waxtaan bi lan nga may tontu tabaarakallah néegu sëy damay wax ne mooy cellule de base de xam nga ab tabax pour mu taxaw ay brique la ñuy boole ba am batiment su ma doon leeral néegu sëy dama naan la brique lim doon ci bâtiment moom la doon ci société su néegi sëy yi jegee mel na mu war a mel ambiance ya fa war a am di fa am loolu di refléter ci genre société bi nga xamante ne moom la am néegi sëy yooyu it am ci biir fondement boo xamante ne bu doy waar la bu am solo la bu sell la bu laab la maanaam muy acte sexuel maanaam sëy bi nga xamante ne mooy dox diggante góor ak jigéen muy loo xamante ne li tax ñu jël suñu gëstu di ko ci def ak di ci góorgóorlu dañoo gis ne am na ay études yu wane ne euh, fukki at ak juróom a ngi nii ci ginnaaw maanaam deux tiers góor ñi ci àdduna bi ñu ngi souffrir de problème sexuel ci biir deux tiers nit góor ñooñu am ci nombre important boo xamante ne ay musulman lañu amaat ci biir musulman yooyu nombre bi important boo xam ne sunu ay mbokki taalibe lañu te sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ci benn xadis ne wa man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minna képp koo xamante ne li jullit ñiy dund ñorul la kooku bokkoo ci ñun loolu moo tax ñu joyal ci lenn ci sunu ay gëstu ngir jéem góor góorlu di ko waxtaanee pour mu leer d' abord. Mm-hmm. di ko énoncer ba mu leer parce que tubaab bi dañuy wax ne tout ce qui se conçoit bien s' énonce clairement. Mm-hmm. jàpp nañ ne jëlee nañ ko ci béréb yi ñu ko war a jëlee di ko leeral ci bopp nit ñi ndax bari wax na problème yi am ci biir néegu sëy yi mm-hmm. ñàkk dégg mbir mi rek la. léegi nag moo tax ñuy góor góorgóorlu di ko jéem a leeral ci anam ba gën a dëppoo ak jamono. anam ba gën a explicite ngir nit ki d' abord parce que léeg-léeg nit di souffrir ci mbir. te moom ci moom boo nekkoon loolu dal du la ko mën a. du ko mën a expliqué euh, soit man loolu yaakaar naa ne sëñ Omar ndaguma la ci li koy faral bi mooy sujet bi dafa xaw a tabu. fii hmm. du ñuy amuñu habitude di waxtaanee. xam nga loolu lu mel noonu te yaakaar naa lislaam bañu loolu. parce que su fekkoon daf ko bañ du daganal lu mel noonu. sallallahu alayhi wa mi nga xamante ne moom la yàlla yabal ci ñun te mooy ki nga xamante ne ma ateekum rasul fa moom la ñu yàlla wax mooy moo gënoon a tar kersa ab xiig bu dugagul néegu néegu sëy te wuy tontu ba tay ci ay questions yu ma xamante ne day am rapport ak sexualité tontu na ci aw góor tontu ci aw jigéen euh, am na ci benn xadis boo xamante ne day wax ne laa yaqaanna ahadukum ala imraatihi kama taqahu lbahima la kaana baynahuma rasulan qiila maa huwa rasul qaala alqublatu walkalaam dañ ko dafa wax ne amul benn góor boo xamante ne war ngaa ñëw rek dem ci sa soxna ni ki rab yi di demee ci seen i seen seen seen jigéen mooy nee na dafa la kaana baynahuma rasulan dafa war a am préliminaire yu dox seen diggante ñu ne ko sallallahu alayhi wasallam lan mooy préliminaire yi mu ne alqublatu wal kalaam ak wax fóon bu ko waxee contact physique lay wax mhm. caresse da ciy dugg kalaye da ciy dugg li muy signifié bëri na li nga mën def yëpp ba nga xam alkalaam uh-huh. lim ci jublu maanaam mooy wax mooy détente atmosphère bu la nit gisee sa kanam ne ñëgg nga ñàng ba bëgg dee <laughs> soo waxee boo ñëwee mën naa am ay préjugés jàpp ne xëy na da nga da ngaa mer wala da nga koo bëggul wala li may def da laa waaye ree gi ngay ree wala wax ja ngay wax wala baat ya nga koy dee yooyu mooy détente souvent nag sëñ Omar yenn personnalité yi moom day day tiitloo sax nag nit ki nag waaw moo tax sallallahu alayhi wa lu mu wax nañ ko déglu bu baax dana alxublatu wal kalaam alxublatu bu moom la ci bëgg wax parce que yow sa soxna boo ko ñemee loolu sa bopp ba ba ngeen egg foofu tamit du yaramam du pare du ñeme tamit pour yenn yi maanaam li mu ci jublu mooy yëpp yi nga xamante ne dafa war a jiitu ak béréb yan war a laal yépp bala ñoo tàmbalee dem ci mbir mu dëgg-dëgg alkalaam ak mboolem arsenal communicationnel bi ci war a topp. loolu la ci jublu moom salaay. léegi sànq nee nga ma dafa bu yenn góor yi di di di ci monde bi mm-hmm. rawa ci jullit yi ba ci mbokku taalibe yi loolu ndax mën nga ñu see ñëwal ban souffrance la. waaw dafa am góor ñi dañoo am problème sexualité mooy dafa am loo xamante ne dañoo parce que góor ni ko yàlla bindee pour pour ne pas me répéter parce que xam nga am na détails yu bari yoo xamante ne. Ah, mhm. laaloon naa ko ci émission bi voilà léegi ñi may siiw dama bëgg mu am benn cohérence bu ñuy yëg ci li may wax. Mhm. dafa am benn hormone bu nekk ci góor bu ñuy wax testostérone testostérone boobu moom la ñuy wooyee sax hormone de l' agressivité mooy maanaam hormone bi nga xamante ne su dee produire ci biir góor mooy waral góor am xatar gi nga xamante ne moom la war a àndal pour mën a jëf acte sexuel boobu. maanaam boobu nag. dafa nekk di wàññeeku bu baax baax a baax ci ci ci góor ñi te li koy wàññi dafa bëri ay facteurs yu ci dugg dara jiituwu ci maanaam lekk yi ñuy lekk parce que bu ñu fàtte ne euh, euh, le père de la pharmacie moderne euh, waay waay waay xëy na turu dina mu ñëwal ci kanam waxoon na ne il faut que ton alimentation soit ton premier médicament lekk yi ñuy lekk am na ci yoo xamante ne day wàññi suñu production de de testostérone mm-hmm. ci de ce maanaam muy wàññi suñu suñu suñu ngóora beneen bi ci topp maanaam mooy stress bi stress bi nga xamante ne moom la ñuy dund ci biir kër yi. parce que stress day wàññi testostérone bokk na ci li koy firndeel mooy nit ki saa yi yeewoo. Mhm. même su ko bëggut day yeewu lu ci bari maanaam saakaram du jóg. parce que jamono boobu stress bi dafa jeexoon parce que da doon nelaw. ci jamono bi muy nelaw fa yaramam maanaam profité di liggéey testostérone. Mhm. moo tax góor ñi di yeewu wàlle loolu ñuy yeewu wàlle. léegi nag boo jëlee ñaari cas yooyu bokk am na yeneen mais mooy yi ci gën a yi ci gën a fës. Mhm. mooy wàllu stress bi ak ak wàllu alimentation bi. li ci des nag maanaam mooy d'ordre psychologique mooy d'abord parce que ki ngay sëyal est-ce que bëgg gi wér na am na. Mhm. est-ce que sàppantewu leen. <laughs> est-ce que routine yemu demul ba yàq li ngeen di def. Mhm. parce que it doomu aadama yàlla da ko bind ci yàlla da ko bind ci maanaam euh, bëgg di di soppi. ndax wolof fi dañuy wax ne. sullu changement voilà sullu sanc la bëgg bu ko mënee am maanaam ni yàlla bind góor dafa bëgg di changé mbir léegi nag routine bi li koy changé mooy soxna yi dañoo war a fexe ba. di chaque jour nga maam nga def sa ak sa ak sa ñaar yooyu di yëngatu. ñëw toog te soppeeku changement bi dafa a dem ba phys ba physiquement même même. sa nga di ko changé yére yi nga doon sol nga di ko atmosphère bi ngeen dund tamit parfois muy laaj changement. ah yu mel beneen facteur boo xamante ne bu mat a considéré la fii ci réew mi maanaam muy wàllu rab wàllu rab tamit dafa nekk di indil fii ci réew mi góor ay problème yu bari bari ndax jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi euh, jógalug sàkkar maanaam sàkkar su jóg enhance ci arab wala érection ci français ñaari érection moo am dafa am li ñuy wooyee l' euh, érection réflexogène érection réflexogène loolu contact physique moo koy joxe laal gi ngay laal wala raay gi ngay raay loolu information bi su jógee ci sa loxo jaar ci neer yi ma la waxoon jaar ci colonne vertébrale hypophyse ba dem fa mu war a dem maanaam ñu jox sa sa sa yaram ordre mu am mu def érection loolu mooy érection réflexe réflexogène dafa am nag beneen érection boo xamante ne mooy érection psychogène maanaam érection psychogène bi nag maanaam mooy bi nga xamante ne moom la nit ki yëg par exemple buy xalaat ngay xalaat jigéen am di yëg maanaam sa sacré di wala ngay seetaan pornographie wala nga nekk ci ay masturbation yooyu maanaam mooy réflexion mooy mooy érection euh, psychogène léegi nag bu fekkente ne nit ki dafa am problème rab maanaam bu doon seeraan porno day yëg day yëg bëggee masturbé wu day yëg waaye saa yu ko wowee ci farata rek maanaam sacré si nañ leen. loolu loolu fiir bu rab bi di fiir. voilà léeg-léeg nag loolu maanaam rab day du doy waar loo xamante ne dama doon bëgg sax bu ma amoon mënoon am beneen jotaay maanaam ñu leeral dëgg-dëgg. yi nga xamante ne moom lay def ci doomu aadama bi que nit ki ñàkk ci côté sexualité ci ak ak ci ak dans la rab yi maanaam ci ci ci ñàkk nit ki ñàkk gi mi ñàkk euh, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan dafa am noo xamante ne noonu la yàlla digale ñu dunde ko ci ci ci ci lépp parce que islam du ibadat kepp ibadat la ak muamalat ni ñuy dunde ci suñ ni ñuy def ci suñu ibadat ñu góorgóorlu ci muamalat yi ci ni ñuy soloo ci ni ñuy lekke ci ni ñuy waxe ci waxtu wu ñuy génne ci waxtu wu ñuy loolu lépp day loo saa yoo xamante ne enfreindre na règle yooyu rek dina am maanaam euh, loo xamante ne mën nañu jëfee wa maa asaabaka min sayyi'atin fa min nafsik ci loolu euh, rab yi maanaam jinne yu saay-saay si ak jinne yi nga xam ne duñu ay jullit dañuy dañuy am ay impact néfaste ci maanaam nit mën naa génn saytaane topp ko maanaam su ma nee ashayaatin ci alquran su ko waxee maanaam mooy jinne yi xamante ne ay jinne yu saay-saay lañu te euh, wala ñàkk gi nga ñàkk jëfandikoo tur yàlla ñàkk gi nga ñàkk sell ba lu mel noonu topp la nekk ci sa yaram mm-hmm. xam naa loolu loolu yëpp dinañ signalé wala su ko defee nag saa yoo ba soxla saa yoo demee ba soxla sa bopp mu dala def ay kuuba mm-hmm. day def jigéen jigéen da gis koo xam ne day nekk ak borom këram bëgg ko lool waaye saa yoo demee ba dugg ci néeg bi du xam lan mooy tax mu bañ ko xolam di tàng mooy xam mu bañ ko waaw ci góor ñi it maanaam ñoom nu mu leen di diggal li ci bari maanaam dina leen dikkal yaram buy tàng dina leen dikk ay mauvaise humeur dina leen dikkee éjaculation précoce mais en même temps dina leen dina leen digge impuissance partielle mooy saa yoo ñëwee soxla sa bopp ci farata rek mu lànk waaye saa yoo soxla sa bopp ci ay caaxaan mu nangu ndax buñ fàtte ne nee woon na euh, wa man yaxshu an dicri rahman nuqayyit lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin yàlla waxoon na ne képp koo xamante ne euh, da nga fee bàyyi tudd yàlla tudd yàlla su ko bëggee wax mooy booleem li sellal nit képp ko fi bàyyi rek dinaa la boole seytaane mu mu ànd ak yow lekk muy lekk sooy naan muy naan looy def mu la ca dara loolu alxuraan moo ñu ko moo ñu ko xam naa foofu moom terrain bu vaste la incha allah dinañ ñëw ci wàllu sexualité ak rab mais euh, sànq wax nga que ne euh, aspect yi nga xam ne moom mooy tax góor yi di gën a jànkonteeg ay problème ci wàllu néegu sëy yi mm. bokk na ci alimentation bi mm. ak ak ak lan fàttali ma ko alimentation bi ak stress bi ak stress bi. Ah, léegi ak ak ak ak wàllu rab. Mhm. Mm. ma ma gis beneen euh, ma xalaat beneen tamit boo xam ne est-ce que mënul indi problème ci ci ci néegu sëy mooy koo xam ne. awraam dafa dafa dafa gàtt. waaw effectivement xam nga doomu aadama. ñun ñun africains yi ni ñu yàlla bindee dañoo am li ñuy woye le culte de Phallis le culte de Phallis lu développé la ci ñun maanaam mooy dañoo jàpp ne góor léppam dafa war a rëy léppam dafa war a ànd ak xadar ba tax na góor gi su fekkente ne xool na sax ak ciram melut na mu war a mel moom au lieu soxna si di ko wax lu koy déranger moom ci boppam mooy mooy développé. déstabiliser boppam d'abord mooy déstabiliser boppam d'abord nga xam ne su soxna si day am li ñuy woy une honte de soi. day rus ci boppam mhm. boo rusee ci sa bopp nag da lay stressé bu la stressé doo jógal bu la stressé doo jógal te maanaam sàkkara euh, ci ni ko ni ko ni ko ci ni ko ci ni ko yàlla binde maanaam très généralement maanaam jigéen su fekkente ne am pëyam su demee ba nekk ci activité sexuelle day am profondeur u 15 centimètres dan lay wax ne liy excité jigéen ji soo 5 centimètres yu njëkkee rek soo ko dépassé maanaam da nga da nga ko da nga ko mën a jël da nga ko da ko mën a laal. maanaam fi nga xamante ne su ko laalee jigéen ci dëgg-dëgg foofu dina emballé yaram ba jouissance mën caa topp maanaam ci premier tiers profondeur bi mën nga ko jot ce qui veut dire que 90 pour cent sacré yi maanaam mën nañoo stimuler jigéen ba mu jouir xam kon la ca des lépp mooy bëgg lu ñàng ak bëgg lu bëgg lu garaaw rek waaye la nga yor loo ko xeeb xeeb xeeb ndax maanaam baaraamu sang liñ bii sax am na nis jëfandikoo ci payum jigéen maanaam mën naa mën na mën naa jouir kon nag waxuma la ak sacré su fekkente euh, micropénis parce que sàkkar yi dafa am échelonnement bu leen boo jógee 9 centimètres jëm suuf loolu la ñuy woy les micropénis xataa les micropénis sax bu ñu góor góorgóorloo mën nañoo mën a stimuler jigéen ba mu ba mu. te te bu ma juumul suñu waxtaan bële waxoon nga ma ni. Mhm. jigéen ñaari façon jigéen ñoom ñoo. am ci ni muy yëgee plaisir. koo xam ne ci clitoris bi lay lay amee. plaisir am koo xam ne ci ci vagin bi lay. lay amee lay mu ngoog mhm. mu léegi nag maanaam euh, góor ñi ñi nga xamante ne dañu am jafe-jafe yi maanaam sakkara su ndaw ba mu ba mu ba mu jaaxal leen loolu it ay pexe am na ci asaraan indi na ci ay solution mais débat la boo xamante ne. xam naa mais kon daal taay bi taay bi du problème bi. taay bi très généralement du ci problème su ci demee ba doon problème rek mooy séré na ba ëpp séré na ba ëpp waaye li nga ci yor soo fexee ba yàquwut mu mën a taxaw lañ ko soxlaa giir bañ ko soxlaa du dugg fa mu war a dugg maanaam man mën naa fexe ba soxna si am mais nag dafa am beneen phénomène bu xew mooy pornomania Euh, jigéen ñi dañoo seeraan pornographie ba nga xamante ne façon jigéen façon góor yi ñuy gis ci seen ci pornographie yi suñ ko gisu seen borom kër rek commencé ko sous-estimer te pourtant euh, pornographie comme comme comme comme film kon yeneen film yi casting la ñuy def. góor ñi ci mm-hmm. mais problème bi mooy kon damay damay wax sama mbokk jigéen ñi di wax sama mbokk góor ñi góor ñi nañu assumé wu. Mm-hmm. li leen yàlla li leen yàlla sedd loolu yàlla du ko du ko soppi nañ ko doyloo te utiliser ko à bon escient. fexe it ba maanaam seen partenaire lañ yor lu mu ndaw ndaw ndaw maanaam ñu fexe ba di ko ci bégal ah, loolu tamit mën naa nekk waaye nag loolu jigéen ji ci seetaan ko tamit dina indi tamit ci koo xam ne téyewoo sa bopp tamit di dox ba tas jigéen gi nga xam ne façon bu nekk gis nga ko def nga fu nekk tamit bu fekkee dem nga ma am borom voilà pour mu satisfaire la je crois que xam ne dina xaw a jafe mi ngi mi ngi noonu kon nag soxna yi même même même loolu tamit ci ku ci ku góor ki tamit su fekkee façon jigéen bu nekk amante nga ak moom mhm. euh, dem ba am takk benn soxna tamit. pour pour mu waa pour mu jot tamit day xaw a day xaw a day xaw a kii. mais soxna yi nañu comprendre góor ñi te dalal leen maanaam xamal bu góor ñëw nga di ko xeebal li mu yor bu ñëwee naw ko <laughs> xamal ko ne li nga yor moo fi gën su ngeen demee ba nekk ci bërëb ba na nga am réceptivité na nga am la ca war a ànd ci ci ci waxtu la ca war a ànd ci yuuxu la ca war a ànd ci sab lépp de ko def mhm. parce que góor it dafa am nag loo xam ne mooy falaati égoom loolu moom la ci soxna yi bàyyi xel waaye nag su borom kër ñëwee ba lay def dara moom mooy def góorgóorlu ba ba ba jaanam wàcc mu wàcc dem tëdd na de <laughs> amul dara lu koy firnde ne li mu def neex na loolu c'est <laughs> décourageant. waaw mais loolu tamit day wan day am benn ak aspect boo xam daf koy xaw a soulever parce que dégg naa ci docteur Jeanne Diaw muy wax que ne. Mm-hmm. fii nii Sénégal mm-hmm. euh, dañuy jël maanaam li tax problème yi di xaw a am biir néegu sëy yi bokk na ci mm-hmm. euh, ñàkk bëggante bi. nee nañ fii nee nañ fii sëy bëggante moom moo nekk troisième position ne mm, mm, mm. nit ki dafa naan dafa damaa war a sëy parce que dama cee toll mm-hmm. nit ki naan damaa war a sëy ndax war naa am mm-hmm. nangam war naa am euh, lii pesanteur yi am ci société bi mm-hmm. position la la la bëggante mais est bu fekkee base bi du bëggante ak yooyu nit ki pour nga xeeb ko day gaaw pour nga déstabiliser ko ci lu mën ci doon day day yomb est tamit nekkul base bi tuuti sëñ loolu moom xam nga waxoon naa ko ci suñu waxtaan yu weesu maanaam mooy sëriñ bi waxoon na ne sëy ba la ñu ko fas lu ñu yàkkamti yàkkamti nañ fexe bu góor gi bëgg jigéen ji bëgg parce que nag euh, vie sexuelle wala boobu vie de couple maanaam euh, base bi socle bi maanaam mooy bëggante ak mahabbatu su ci amul rek pour leneen am ci day day pour maanaam problème feeñ ci lay bari mais nag xol bi bëgg mooy xol bi nga xam ne parce que man ni muy firee mbëggeel maanaam mbëggeel man jàpp naa ne mooy partage et sacrifice ki la bëgg mooy ki pare pour séddoo ak yow lépp say naqar alalam say coono lépp da koy séddoo ak yow waaye rek mais en même temps sacrifice mooy ki nga xamante ne ubbi na xolom pour fas yéene booleem li nga li li déborde ci yow ci lu bon mu fas yéene ko def ci xolam te dencal ko kon nag mooy d' abord kuy kuy wax ci vie de couple daal bala ngaa wax ci seen sexualité maa ngi lay wax d' abord nga waxtaan ci mbëggeel il faut que ñu cultiver bëggante ñu cultiver bëggante te fexe ba yi nga xamante ne mën naa entraver bëggante ñu fexe bañ cee dem yow xam nga ne sa baay am na façon nit yoo xamante ne buggul buggul buggul nga sëy ak ñoom bul bul bul bul jéem a bëggante ak ñoom. parce que ah, soo soo defee nañ la <laughs> mais bëgg tamit sëñ Omar. Ah, nekkul nekkul loo xam ne da nga koy forcer sa bopp. wala da nga koy nit ku nekk nit ku nekk ci sa environnement ngay bëggante très généralement ci sa environnement ngay bëggante te it maanaam li ñuy wax coup de foudre am na gaa waaye li muy lu raar la gis nit rek ci premier regard nga emballé wu maanaam perdre tous tes moyens loolu li muy am bëriwul. très généralement maanaam bëggeel gi résultat wu jëflante bi lay doon. Hmm, léegi nag dañ koy jëmbat daal. voilà di ko jëmbat di ko bu mujj ak dayo boo xamante ne kenn mënatu ko buddi léegi nag loolu nit ki foo xamante ne soo fa jéemee bëggante ëllëg si bi da la jural ay jafe-jafe kon nag dès le début maa ngi lay diggal nga résigné ñëw nga résigné wu peut-être foofu man du ma ci d'accord ak yow à ah, 100% mais mais <laughs> mais parce que tamit lu nekk lu nekk mën naa am tamit. lu nekk lu tax loolu soo gisee ma koy développé noonu damay waxtaan ak ñëpp waaye damay wax très généralement ak sunu environnement direct. fii ci diggante Touba Njaaréem ak Darou Mouhty ak Bawol ak li ko parce que man yenn yenn tënk nit yi parfois daf may nuroog xaw a ñàkk pexe parce que bu fekkee dañ lay tënk ci sa environnement que ni yow foofu rek nga war a bëggee waroo génn ah, parfois loolu day xaw a nuroog war ngaa bëgg fépp waaye bëgg foo xamante ne nag da ciy day dikkul ay problème yoo xamante ne day indi yeneen jafe-jafe. <laughs> waaw dëgg-dëgg. mënees na sa xam naa daal gaal googu moom bu ñu ci duggee moom danañ kii léegi mën nañ continuer si waxtaan bi sànq wax ñëw nañ ci problème mu mm-hmm. nee nga taayu euh, awara ku góor ki nu mu toll war na mën a def kii mais est-ce que euh, éjaculation précoce mënul indi tamit sëy ci ci euh, problème ci diggante. voilà ah, effectivement mën na ci am ndax mooy li may wax la théorie du plaisir unilatéral. mooy góor goo xamante ne saa yi ñëwee rek moom mooy lijjanti ku dem soxna si di am ay yëg-yëg te yëg-yëg yooyu jéemoo ci dara bu yàggee mën naa dem ba bañ la mën naa demit ba développé ci moom li ñuy wax ba def ko muy arrêté du plaisir sexuel du plaisir euh, euh, ni ñu koy waxte solitaire mooy ñi nga xamante ne dañuy faral di jëfandikoo sex toys yi mooy xeeti sacré gaws yi ak yooyu wala boog ñuy def masturbation wala man mën mën mën na ko jur waaye daal en état de cause éjaculation bi góor ñi dañ cee war a def ay pexe ndax amul benn diir boo xam ne dañ ne maanaam érection moom la war a am waaye daal képp koo xamante ne maanaam yaa ngi def chaque jour ngay njëkk a yegg sa partenaire xamal ne yaa ngi def éjaculation précoce su fekkonte ne da ngay def cinquante minutes waaye cinquante minutes yooyu maanaam boo ko defee ba mu ak yi sax sa soxna suwér nga suwér maanaam sa éjaculation boobu ci benn point de vue mënees na avancé mënees na avancé précoce. c'est précoce. góor kon nag góor gi dafa war a fexe ba góorgóorlu ba xam éjaculation précoce bi li nga xamante ne moo koy waral ci moom ginnaaw bëgg gi ak emballement bi ngay bi ngay ñëwee bokk na ci jëmmi sacra point bi ci gën a sensible maanaam mooy galan bi fi ñuy wax kàng mi foofu euh, borom xam-xam yi dañoo wax ne am na mille 8000 capteurs 8000 capteurs yoo xamante ne moom la ñuy wooyee euh, corpuscule de Croce corpuscule de Croce yooyu mooy yi nga xamante ne ñooy capté bànneex bi di ko jaarale ci neer yi muy dem ci bo bopp bari am na ay garab yoo xamante ne dañ boo ko dee jëfandikoo am na ci pharmacie ba am na ci garab bu wolof am na ci asraarul quran loo xam ne soo koy jëfandikoo maanaam sàkkara soo sensibilité bu ëpp boobu ciy nekk hmm. bay waral maanaam muy indi éjaculation précoce moom la ñuy moom la ñuy diminuer amortir ko wàññi amortir ko voilà hmm. ba nga xamante ne day mel ne maanaam bu daan yóbbu maanaam cent à la à la seconde huit mille mu xaaj ko mu nekk sept mille ak bu daan yóbbu cent à la seconde <laughs> ngay daanu dans dix minutes léegi day day yóbbu 70 à la seconde ngay daanu dans 15 minutes bu ko defee mais yooyu ay yeneen mbir la yoo xamante ne. ñu ngi koy traité ci garabu garab yi nga xamante ne moom la ñu suñu borom baax. est-ce que rab mën nay tax nit ki di éjaculer. effectivement rab daf koy daf daf koy def lu bëree bëri bëri da koy am na ñoo xamante ne euh, daf leen di yóbbu éjaculation précoce te très généralement bu ñu xoolee bu ñu bu ñu defee éjaculation précoce ba pare li des ci guddi gi dañuy amee insomnie bu amul insomnie tamit. dañuy dañuy dañuy dañuy mer mer moo xamante ne mu jéggi day énervé waaw ak donte sax seen soxna deful benn acte buy wane ne maanaam li nga def neexuma mais loolu euh, ci seen fort intérieur dañ koy yëg loolu rab bi moo da koy def bu baax a baax baax te ñi nga xamante ne rab da leen koy def très généralement soo waxee ak ñoom dinañ la leeral ne la ñoom dinañ faral di dinañ faral di gént di sëy dinañ faral bu ñu tëddee bëgg du ñuy mel dañoo yëkku ku dox seen diggante ak seen ak seen soxna am na ci ñoo xam ne sax dañuy gént di jëflante ak ay man am na koo xam ne dafa ñëw ci man ne ma man jooy laa dëkk ndax damay jënd guddi gu jot fas laay sayal hmm? ba loolu fi mu toll waxuma la euh, maanaam su su ma ñëwee dans la vie réelle doo man dara mais su ma nelawee rek maanaam damay jënd di jëflante ak ay rab ak ay ay xeet yi rab ak yu mel noonu moo tax mais loolu est-ce que mën nañ ko faj mënees na ko faj bu baax a baax a baax ndax li ma la wax léegi rek boo dem problème yi rek li koy indi maanaam mooy euh, wan gannaaw téere bi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan ku fi bàyyi sama téere bi ku fi bàyyi li ma indi li ma jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu la woon macha allah dankan mais entre parenthèse yéen ñi nga xam ne da ngeen di da ngeen di ñaan ci wàllu asaar ak yooyu li ngeen di jànkonteel si problème yu sexualité est-ce que bëri na bëri na lool te divers bëri na lool te wuute bëri na lool te wuute waaye falilaa alhamdu mm, ñoo ngi ci sant bu baax a baax a baax ndax diggante daaw ak ren biñ ciy waxtaanee bëri na ay nit ñoo xamante ne gis nañu seen soxla te wax dëgg yàlla à 90 pour cent sant nañu ñoo xam ne buñ santee dañ lay woowaat wax la ne la sant su ma la joxoon sama téléphone bee naa la ci woon ay message yoo xam ne ñi ko yónnee bu yàggut lañ leen ci jublu waaye sant nañ am na ci nag ñoo xam ne ba nga leen joxee seen garab nga leen mujj dégg may profité foofu di leen wax ne man képp ku ma jox sama sama garab damay bëgg maanaam bu la ngay jànkuwanteel nga di ma ko wax su matee dolli ñu dolli su matee soo santee ñu xam ne sant nga résultat bi daal ngeen koy war di xam da ciy baax loolu mhm. léegi loolu si wàllu ku góor ki la léegi bu ñëwee si ko wàllu jigéen ki nag parce que souvent fii jigéen ñi si bëri ay victime lañ ci seen wàllu sexualité mhm. presque da ngay gis ay ñoo xam ne sax dañuy sëy pendant des années mhm. mais duñu xam lan mooy daanu duñu xam lan mooy plaisir boo leen ko waxee sax ñu ko xam yooyu jafe-jafe lan moo koy waral waaw ba tey euh, am na problème de communication mais am na problème de culture parce que am na jigéen ñoo xamante ne malformation bi nga xamante ne dafa nekk seen pays wala gaañu-gaañu yi nga xamante ne mooy waral seen périmètre yi ñu ngi ko jëlee ci bi ñu tëddee nga xamante ne loolu kon c'est un problème boo xamante ne ça découle euh, d'un ordre euh, culturel ndax dañ lay forcer guddi gi nga xamante ne moom nga war a tëdd ala kulli haal moom balaa bët sa dara daa war a xew dara daa war a xew léegi nag su ko defee su fekkente ne soxna si dafa am ay li li wolof yi wax soccet science nangu ko maanaam nga xamante ne loolu du la dul maanaam euh, humaine boo xamante ne dafa tegaloo tegaloo ba bu mujj nekk maanaam benn substance bu compacte boo xam dafa naqaree pénétrer nga dem ñu ne da ngay dagal sa soccet maanaam pour ubbil la sa ubbil la sa buntu pay ñu ubbi ko mopp wala ñu ubbi ko gaañ la nga jëlee ci ay séquelles yoo xamante ne da koy diriwaale ci sa biir sexualité wala boog sa borom kër nekk koo xamante ne xamul bagage yi bi mu ñëwee yoonam nekkul ci yow muyee muyee nga wala muyewoo mu ñëw rek daal di jël ma góor jawam daal di ko ci def ba la wala boog moo koo xam ne dafa am cër bu mag a mag a mag a mooy mu mu mu pénétrer la non seulement bi muy pénétrer mu mu déchirer la mais bi mu duggee ba ci biir tamit mu indil la fa la ñuy woy effondrement du Douglas gaañ la biir nga xamante ne yow day mujj sax acte sexuel daf lay dégoûté. da lay dégoûté da di ci tiit di mën a bokkut ak ne jigéen ñi nga xamante ne dañuy souffrir de sécheresse vaginale. parce que dafa am ci peyum jigéen la wax les glandes de Bartholin ñi nga xamante ne ñoo war a euh, sécréter substance bi nga xamante ne moo war a lubrifier euh, pey mi. am na ñoo xam ne seen i glande Barthélémy doxut euh, de ce fait seen pëy day wow te pëy mi su fekkente ne dafa wow te góor gi defut men pexe wutul jet gel lubrifiant déma la def lenn bu koy pénétrer day métti kooku au lieu muy sentir plaisir ci sëy maanaam kooku ay métit la ci la ci la ciy sentir euh, ci en long terme da tax maanaam sax euh, daf koy dégoûté ndax moom sëy defatu ko maanaam pour bu ko dee def da koy def pour am plaisir. dafay def pour noonu rek pour moom devoir bu mu war a def voilà waaye defatu ko ngir di di di di. dugg nga si point bu intéressant muy affaire soccet ak yu mel noonu. fii xale jigéen ñi dañ ci souffrir lu bëree bëree bëri am na ñoo xam ne peut-être histoire yi ñu ci am du jeex buñ la ko doon nettali fii mm. presque boo dajee fukki xale yu jigéen mm. juróom-ñett yi mën nañ la seen seen histoire buñ la ko nettalee fii doo fi jógee mm-hmm. léegi est-ce que man réellement soccet yooyu am existé na d'abord parce que man gisante naa ak benn tubaab ma di gynécologue la mm-hmm. mu ne ñoom existé wul ñoom foofu ci seen waaw existé en science maanaam science ba fi may waxee nii mënu ko mënu ko cautionné ñoom dañuy bi ak dafa am ñoo xamante ne seen ndaw dafa tendre dafa tendre carrément nga xamante ne maanaam su su paroi euh, vaginale yi dilaté woo su sexe bi ñëwee plein dans le lay doon daf koy xar ci digg bi maanaam mu daal di sañe wala fii daal di kontaan comme ñoom loolu moo leen di bégloo <laughs> am ñoo xamante ne nag maanaam seen hymen dafa refroñé wu ànd ak ay membranes yoo xam ne da koy dëgëral ba nga xamante ne pénétrer ko moom lu jafe lay doon lu jafe la doon am na nag ay genre gel yu ci programmé ak ay affaires yoo xamante ne mën na ko gis su fekkante ne it maanaam dafa doon koo xam ne day faire recours ci sunu médecine nga xam ne moom la jëfandikoo mhm. am na xeeti ñaan yoo xamante ne bu ñu la ko defaralee boo la ko yenn ci ay ren soo ko dee naan dina dindi panoplie yooyu nga xamante ne moo nekk ci sa ci sa vagin ah, voilà mais loolu il faut le faire bien bi nga ko yëgee ci sa bopp yaa ngi préparé sa ci nga koy programme ñu defal la garab yooyu soo ko jëfandikoo dina dina dina tàllal sa sa sa ba nga xamante ne buñ ci buñ ci ci dóoree rek dina mën a sotti euh, ci ay maire lañ lay yóbbu maire yi di utiliser ay yoo xam ne waaw ñoom fi ñuy dagg sax ci ku jigéen ki dina egg fi nga ah, fi daal moom daal mi ngi noonu ak ay fistule ak bari na tawat yu bon yu dal jigéen yoo xam ne ci yu mel noonu rek lay jóge mm-hmm. ci yu mel noonu lay jóge même loolu tamit ci dañ ci wax xarafal jigéen bi ñuy def est-ce woyofal jigéen moom euh, xam nga dafa am ay ay ay positions yu bari te wute parce que euh, man yaakaar naa ne su ma juumut risaala wax na ne alxifaadu makruma mooy am na ay euh, am na ordre ci ci lislaam du loo xamante ne luñ digle la waaye du loo xamante ne dañ ko bañ mais nag saa yoo demee ba nga xamante ne mbir bu bu ñëwee dalay dalay dalay alak parce que jigéen ma ne jongal nañ ko ba mu jëlee ci ay complications. ñu mm-hmm. doy waar yoo xamante ne boo ko waxuma la sax maanaam problème yi mu koy indil ci wàllu néegu sëyam nga xamante ne moom du yëg bànneex wala boog pour mu yëg bànneex lu jafe lay doon waaye daf koy mën a indil yeneen jafe-jafe ci wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu santé mm-hmm. ba tax na daal culture la boo xamante ne xam naa daal nit nag boo nekk bàyyil si culture day diis ci moom mm-hmm. waaye daal xam naa ne jëmm doomu aadama ak ak dundam ak épanouissement am moo gën ñu bëree bëri ginnaaw daal c'est pas Euh, une obligation d'ordre religieuse. vraiment pour man maa ngi wax ñëpp pour ñu abandonné. Mhm. léegi euh, ci ko wàllu jigéen ki ba léegi point G est-ce que jigéen ñëpp ñoo bokkale fu ñu nekk wala ndax point G. existé na wala ndax existé wu. point euh, li muy tekki mooy point docteur Grafenberg docteur Grafenberg mooy ki nga xamante ne moo moo moo wax ne loolu existé na ci jigéen. ca nam ko démontré ne dafa am ci biir jigéen benn diggante boo xamante ne dafa toll ne bu dafa toll ne benn pièce. boo xamante ne maanaam sensibilité jigéen gi maanaam capteurs yi gën a sensible ci moom foofee la ñu nekk foofee la ñu nekk am na ñu ko saxal ci ci ci ci science am na ñu ko wedd ci ci ci science waaye daal li wérte war moom mooy waxu loolu du jigéen képp maanaam góor ak ñëpp kenn ku nekk am nga sa sa bërëb yoo xamante ne moom ko laal sa yaram dina dina dina yëg dara dina yëg dara bon ñi ko gëm parce que it xam nga sexe fu bari dafa dafa dafa bari psychologie mm-hmm. ñi suñu toll loolu boo leen ko waxee danaan effectivement am na man sentir naa ne par exemple bu ñu ko laalee parce que daf ko def ci bopp bi ñi nga xamante ne gëmuñu ko ñu ngi jouir di dund seen di am vie sexuelle bu épanouie te loolu bàyyiwuñ sa xel waaw man je me dis que est-ce que bu fekkoon ay point G am na kon dina nit ki dina du mën a dina dina dina yëg bànneex ci culturisme avec ak ak yooyu. waaw dina ci yëg non c'est-à-dire point bi waxul ne foofu rek la concentration nerveuse bi ah, nekk. dafa wax ne maanaam foofu la ëppee. da wax ne capteurs yi foofu la foofu foofu la ëppee. mooy corpuscule de de Croce yooyu ma la doon wax. 8000 capteurs maanaam capteurs yooyu nekk ci bopp sacré góor yu mel noonu moo nekk ci bopp ci ci clitoris jigéen. Mhm. capteurs yu mel noonu moo ci nekk moo tax mu nekk zone bi gën a sensible ci jigéen. boole ci it maanaam wàllu wàllu wàllu wàllu ween moom it ñu war koo fonk parce que bokk na ci li nga xamante ne maanaam day. day day day day excité voilà day excité jigéen ki ak même góor même góor ay tetoom ay ay béréb yi sensible maanaam di ko laal dina ko jàppale bu baax a baax a baax ci mu gaaw a am érection. ah ku góor ki. waaw laal ay tétons loolu dina ko jàppale bu baax ci mu ci mu am érection parce que foofu tamit ab zone bu sensible la. boole ci ba tey li ma doon wax rek mooy set gi ak ambiance bi ak couleur yi ak xet yi. waaw loolu moom surtout moom nga ñu gën ci bàyyi xel ndax. <laughs> Uh-huh. salte daal baaxul xet gu bon moom day wàññi bëggal. Ah. Euh, léegi ñu ngi doon dugg yaa ngi doon wax ci ak euh, ci fi nga xam ne euh, barab yi nga xam ne buñ ko laalee loolu ci yëg-yëgu ku góor ak ku jigéen loolu lan lan nga ñu si mën mën a kii est-ce ñaar ñooy ñoo bokk yoo ay façon yëg-yëg yu ñuy am est-ce que ñoom nekk durée bi nga war am pour pour am bànneex bo ak sa bosu morom benn la wuute na mhm. parce que li tax ñu wuute mooy seen fii seen anatomie moo moo moo moo moo wuute waaye ba tey rek li ma la ko leeraloon léegi mooy jigéen daal am na ay points yu sensible yoo xamante ne maanaam bala caa góor gaa dem ci point yu mag yi sax am na point yu ndaw yoo xamante ne maanaam kii la lu mel ni maanaam caressé ko ci li ko tàmbalee ci nopp bi ba ci ba ci ba ci ba ci clavicule bi foofu ay point yu sensible la lu mel li ñuy wax massage maanaam euh, bës lu doy waar la lu ama am solo rawatina maanaam bés la plante des pie biir tànk yi am na xeeti massage yu am solo yoo xam ne bu ñu la ko defee maanaam moo moo moo ëpp ci yow njariñ masseur ba gën a mag bés la soxna yi nañ farataal di bës seen tànk borom kër yi parce que loolu tamit ñi xam ko ko ko kii seen massage nga wax ak ban massage surtout massage de la plante des ak coup bi am solo la maanaam ak lu mel ne euh, góor ñi ñuy ñuy ñuy ñuy fon jigéen ñi ci li tàmbalee ci côté seen nopp yi yi loolu lu am solo la ak ak ak maanaam ñu fonk seen ween yi ay béréb yu yu mën a àmbale jigéen la ak maanaam li tàmbalee ci ron ween yi ak si ba ci ba ci ba ba ci ba ci jëmbux bi yëpp ay kii la euh, ak euh, su ma tegee fële nag côté affaire kii <laughs> religion bi diine ak yeneen ya nga xamante ne ña ko seen xel nangu lu mel ne lu mel ne euh, lu mel ne nu ñu koy waxeeti lu mel ne maanaam wàllu wàllu wàllu sexe kii sexe ci gimiñ mm. loolu it ña ko seen xel nangu ah ñu ndax loolu it wala maaw yi dañ cee dañ cee wute ndax alxuraan dañ nisaa'ukum harsun lakum faatu harsakum in shi'tum seen i jigéen ñi nga xam ne dañoo xaw a teengal mu ëpp de souvent da ngay dégg ñu koy bañ ak yooyu voilà am na ñoo xam te ne dañuy wax ne maanaam euh, Yusuf Qaradawi Yusuf Qaradawi déglu naa ko moom dafa wax ne maanaam euh, lekk sobe dafa dafa xaram moo tax moom mu koy tere waaye ànd ak loolu lépp daal xam naa ne bu dee bu dee bu dee euh, lu araam moom du ndaw waaye loolu diisul mais est ce que loolu sobe la sax. loolu gisul waaw sobe la moom ndax su ko génn ci yow da ngay sangu sobe la waaye daal ñi nga xamante ne seen seen xel nangu na ko. loolu lu am solo la nekki nekki góor gi tamit maanaam ñu ñu defal ko lu noonu moom it loolu am lu am solo la. loolu nag tekkiwul ne damay defal je par la l'apologie de la séminophagie. Mhm. li ñuy maanaam jigéen ñi nga xam te ne dañuy lekk dañuy dañuy jëfandikoo wàllu wàllu sperme. Mhm. loolu moom considéré moo ko déggalu ma ko kenn it. déglu ma kenn. mais bëgg naa ñëw si durée parce que tamit souvent yenn góor yi duñ jël seen temps dëgg-dëgg. Mhm. ci ci yëg-yëgu ko góor parce que góor yaakaar naa temps bi muy jël pour mu am plaisir moo gën a gàtt. Mhm. que bi jigéen di jël. voilà waaye loolu lépp mi ngi aju rek mooy dañuy dalawaat ci li ñu weesoo rek. Mhm. maanaam mooy communication bi ak waxtaan bi ak boole yi nga xamante ne rek moom ngeen ci war parce que comme ni ma koy faral di waxee rek maanaam l'acte sexuel couronnement la. li nga xëyee yéen ko ba ngoon jot loolu rek moom nga moom dañ naan la li li mooy rapport bis bi nga signé suuf signature ba ngay def pour entériner ko loolu mooy ak section ce qui veut kon affaire bi lu ñuy tàmbali ci bëccëg gi la nga mhm. defee ñëpp def ci jigéen ji def ci xol def ci volonté góor gi def ci xol def ci volonté ngeen def ko en symbiose maanaam yéen ñaar ñëpp bëgg bu ngeen xëy suba kër gi am jàmm xale yi am jàmm. mais su fekkee yow ak góor gi du ngeen waxtaan carrément di waxtaanee seen néeg kenn ku nekk naa man lii laa bëgg wala ni nangam nangam est-ce que loolu tamit ambiance boobu. nit ki dina ko mën a am ak tamit souvent yow sëñ Omar yaa ma gën a xam góor yu bëri. loolu ñàkk am na ñoo xam ne wax taxaw wax ak seen soxna rek moom dara duñ ko def. wax la wax naa la ni ci ak njàlbéeneel salaasalaam nee na nañu jiite alqublatu wal kalaam alqublatu maanaam mooy fond mooy ay embrassade fóon yu ndaw yi ci kaw maanaam yu ndaw yi ci la fóon yu mag yi ci la dégg nga day waaye alkalaam euh, euh, mu ak boolem boolem euh, rapport ni ñu koy waxati boolem rapport physique bi nga xamante ne mooy am seen diggante waaye alkalaam waxtaan hmm. alkalaam dara jiiru ko ci waxtaan waxtaane li nga xamante ne moom ngeen jàpp ne mooy mooy mooy kii ndax li ngay def soo defee ba jàgg laaj ko ba xam neex na bu la nee neex na nga continuer bu la nee neexul nga soppi defin <laughs> nga soppi defin parce que dem euh, sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, al mal'un man ata imraatan bi dubriha maanaam képp koo xamante ne daal da ngay euh, aw kama qaal da ngay dikkee jigéen ci ginnaaw ci ci ci ci ci anus loolu moom dafa xaram dañ koy tere waaye lu dul loola beneen position bu ngeen def rek loolee moom dara néew ci ngeen def ko ci kaw sutura ak ak ak bëggalante mhm. am na benn téere indien bu jàgg bu ñu wax kama sutra 64 position nga ca tabaarkàlla la bu buñ ko seetee bu ca nekk mën na leen a wan nañ ko 64 position 64 pour moom mën naa ne mooy bible sexualité buñ bindoon la ca bu yàgg yàgg yàgg yàgg ci Kama Sutra ku dem ci Google sax boo ko tàppee dina la ko wan mais yu bari yooyu day am yenn nit yoo xam ne su su ak surtout fii suñu culture am na ñoo xam ne jàpp nañ di changer yenn ay position ak yenn kii sax ak ak bon la ku koy def ah, baaxoo lislaame woog yooyu du ak bon du ak bon parce que li ñu war a xamante ne mooy lislaam ñëw fi pour indi li problème l'islam dafay ñëw pour harmoniser dund nit ñi kon du leen benn entrave boo xamante ne mm-hmm. day day ni mu leen di indil ay possibilité pour ñu mën a épanouir ci fànn yëpp noonu la leen defal ay roxsa ay ay wayafal ngir ñu mën a épanouir tamit ci seen ci seen sexualité mm-hmm. mais nag il faut ñu arrêter euh, tamit yenn yenn discours yu yu métti yi ak ak diis l'islam c'est simple yuridullah bikumul yusra wala yuri waaw ah, yuridullah bikumul yusra. waaw yow jàpp ne loo def ak kii rek génn nga si lislaam wala. Ah, diine woo wala yu mel noonu. <laughs> yàlla li bëgg ci ñun mooy ak yombal. Ah. léegi bu ñu ko desal mbir yi mën naa yomb. Mhm. Hmm. léegi gis nañu jamono yi wàllu masturbation peut-être amoon na sax ay jamono. mi dafa gën a masturbation musu fee jóg. dafa gën a bëri. musu fee jóg ndax da ngay gis ci téere yi ñu koy istibnaaw istibnaaw mooy maanaam góor goo xamante ne day fooyee sakaram maanaam ba nit ki noonu am na jigéen ñoo xam ne dañuy foyee seen bopp ñoom tamit ba ba ba ba ba jouir masturbation nag tubaab yi ñoom soo waxee dañ naan du du tox a télé waaye loolu ça dépend ñoom ci conception bi ñu am ci télé parce que fii ci suñu réew góor goo xamante ne bu ñëwee dina am ñaari waxtu ci kaw lal bi doogu mën a jógal te su jógalee def benn du mën a jógalaat kooku ñun ca dëgg-dëgg mënuñu ko jàppee ngóor te ñoom fii ci Afrique surtout fii maanaam te maanaam masturbation ki nga xamante ne moo koy faral di def mooy ki day am érection bi ñuy woowee érection psychogène érection psychogène boobu bu fekkente ne da ko tàmmal yaramam day mujj pour mu am érection réflexe réflexogène day jafe day jafe ba nga xamante ne maanaam ki nga xamante ne day day day day masturbé wu mi ngi tëj moom ci karkaan boo xamante ne pour mu génn ci mën naa jafe hmm. tey mbir la moo xamante ne nit ki su ko tàmbalee ba di ko def man naa mujj ba am ci li ñuy woowee addiction du ko bàyyi da koy ñoo xamante ne dañuy nekk ak seen soxna di continuer te loolu li ko waral mooy tel koo boole ci seen pratique day wàññi ngóora ba pare maanaam de loolu ma la wax dala koy def mooy day yàq sa diggante ak ak parce que soo ci amee addiction moom pour keneen satisfaire day jafe mm-hmm. moo tax moom lu mat a moytu te sunu diine bëgg ko moom nañ ko bañ góor yi bari waa na ñuy jàmbat ngóora te dara yóbbeewu leen ko dara yóbbeewu leen ko très généralement man ñi ñi may woo ci bitim réew ku ma woo jàmbat ma affaire ngóora li a laaj mooy est-ce que da ngay masturbé te généralement dana la effectivement bu neexul bu def mm. kon loolu moom vraiment góor ñi nañ ci dimbali bu baax te moytu ko. mais lan moo koy souvent di waral yéex a takk soxna la. wala yéex a soxna gi wala wala wala wala. bëgg a découvrir am na ñoo xam ne sax bi ñu koy def ci ak ndaw parce que très généralement nit ki su weesoo âge puberté am na euh, léeg-léeg maanaam am yu muy def yoo xamante ne pour découvrir boppam rek la. waaye nag su fekkente ne téyal ñu ko teg ci ay yoon mën naa dem ba mujj mu indil ko yenn yen yenn yeneen dérive maanaam xale yi daanañ daan xale yi ci biir ci biir bërëb yi nga xamante ni lañuy ñuy daje la ñuy daje da gis góor ñoo xamante ne foofu la ñuy essayé maanaam bu di ci seen biir loolu buñ ko téeru teg ci aw yoon mooy dem bu jur homosexualité góor ñi nga xamante ne it maanaam euh, dañuy bëgg a découvrir seen bopp lu ci bari maanaam ci âge boobu mën nañ ko faa commencé waaye nag gëj a gisee gëj a kër gëj kër da koy waral hmm. moo xam nga nekk ci armée moo xam nga nekk ci ab tukki bu sori waaye yooyu yëpp daal moom képp ko koy def daal na xam ne tu n'es pas à l'abri de l'impuissance mm-hmm. l'impuissance mën na laa dab ak donte bu la dabee nag mënees na laa jàppale waat segmenté waat la ba sa ba sa ba sa sàkk dëgëraat waaye boo ñu delloowaatee mm-hmm. tu vas rencontrer les mêmes problèmes mais lan lan moo a avant ngay ñëw ci wàllum faj loo xam daal boo ko defee souvent di nga ci mën a xaw a mucc tuuti voilà loolu li ciy jëkk maanaam mooy nit euh, fexe ba dugg ci cadre l'islam parce que soo nee laa loolu mooy mooy tegu nga ci diggante ñaari raa yoo xam ne fas yéene woo koo génn dégg nga de ni nga fexee nag ba doo lekk mbaam xuux fexe ba doo naan sàngara na nga fexee ba noonu walladina hum li furujihim xaafisun la alxuraan wax bañ na ko ba mu koy wax sax ba muy tudd sa euh, pëy nit ñi sax nee na ñi nga xam ne dañuy sàmm seen i parce que pëy dafa baaxoo ruur pëy dafa baaxoo ruur moo tax nit ki day fexe ba takk ko ah di góorgóorlu salaay salaam ñëwoon nag ku man ku képp koo xamante ne am na ci yéen ak can na takk ku ko amut nan saxoo koor te yaakaar naa ne saxul koor li muy métti métti moo gën def loo xamante ne day tax nga ñàkk sa diine wala nga indil sa bopp complication yoo xam ne ëllëg si biir soo néegu say da ngay mhm. euh, xam naa ni waxtaan bi euh, am na solo lool lool woon kii mais les si bi ñu ngi may signalé mais benn point rek laa bëggoon ñëw ci bala ngaa bala ñoo tëj euh, yow ci wàllum asraar nga yëngatu lu bëree bëree bëri ci nga koy saafara est-ce que wàllum sexualité ak jafe yi ci am ndax asraar prévoir na ay solution yoo xam ne mën na ko ci indi waaw xam nga nit ki nit ku nekk maanaam ci ci sa ci ab juddu maanaam su ma nee ci sa ab juddu nag maanaam mooy ci sa judd ci wàllu wàllu mystique laay wax maanaam bi nga juddoo maanaam ci signe bi nga juddoo am na kan voilà ci signe as ci sa signe ci zodiaque bi am na euh, quantité d'énergie boo xamante ne moom ngay am muy sa potentiel quantité d'énergie boobu mënees na cee def ay pexe ak ay ñaan ba mu doon loo xamante ne day yokk bokkut ak nag maanaam ñu jël ci alquran loo xamante ne lu yokk wala maanaam ñu defalal la ko maanaam ngay jëg sa bopp bu baax a baax baax wala boog ñu jël ci alquran boole ko ak ay ren wala lenn ci élément de la nature nga jëfandikoo ko maanaam mu raxasaat sa yaram ba nga beesaat taq ndax xam nga général généralement ak ci mag ñi ñi nga xam dañoo impuissant mais ay at moo leen ko yóbbee ndax buñu fàtt ni alquran nee na waman nuammirhu fil fil xalq waman nuammirhu nankusuhu fil xalq képp koo xam ne daal yàlla dundal na la faaw da nga dem ba benn jamono wàññi say faculté kon mag ñi am na ci ñoo xamante ne dem gin dem ba mënatuñoo sëy sëy bu normal loolu ak mag moo ko waral waaye mënees naa def ci asraar loo xamante ne ci ay aayaat ci ay béréb ci ay tegtal yoo xamante ne mu ngi ci téere bi buñ la ko defaralee maanaam dalay yeesalaat ba nga delluwaat ci sa ay 25 ans ndax it nag wa nunazzilu mina al-Qur'an ma huwa shifaa mais mam ñi ko judduwaale est-ce que. non ku ko judduwaale moom man damay dégager ko faj. parce que mi ngi mel ne nit ko xam ne dafa judduwaale baaraam bu sem wala mu judduwaale benn loxom wala mu judduwaale benn bët loolu ce sont des déformations physiques yoo xamante ne yàlla moo dogal bi nga ñëw indaale woo ko loolu pour defaat ko ci yow day jafe par exemple nit koo xam dafa judduwaale benn tànk noo koy saxal tànk <laughs> mais su fekkee dafa dab moom am am ay possibilité yu bëri mën nga am espoir que ne dina ñëwaat kooku amul amul espoir maanaam day hmm. dañ Mhm. léegi eh, li des waxtu bi bari. waaw sant yàlla rek yan kàddu ngay tëjee ak yan solution nga indi si. surtout ci biir néegu sëy yi mhm. jigéen tam nga gën leen jox ay conseil mhm. mais surtout góor yi tam. góor ñi daal nañu yërëm jigéen ñi bokk na ci li gën a diis eh, ci yomal xiyaam bu ñu demee ci balance ya maanaam yërëm jigéen sallallahu alayhi wasallam dénk nañu ko bu baax a baax a baax Serigne Touba dénk nañu ko te it maanaam bon sens bon sens sax dénk ko. parce que jigéen moom ku ne xam ne ne jëmm la joo xamante ne dafa faible. kon salaay salaam moo leen définir comme naaqisaatul xaqli wa diin koo xamante ne salaay salaam la xelam matul kooku boo moom da nga ko di ko yiir te maanaam fas yéene ubbi sa xol bi tooñ yéen lay tooñ nga di ko muñ di leen jégal ngir yàlla ak jëm yéen ak jëm seen tubaab te di maanaam mm-hmm. ko sa bopp tamit yi nga xamante ne day am di wax ak moom day am di leen ko teg ci kaw taabal ji di ko waxtaane muy jeex mais bu kenn denc rancune parce que damay wax ne seytaane microbe la bu sew bu bon boo xamante ne fu fu xat rek lay bañ maanaam soo su ma la jàppalee dara denc ko ci sama xol te génnewu ko maanaam vérité réconciliation bu amut day fekk loolee fa mu nekk mu nëbal ko nëbal ko nëbal ko nëbal ko mu jóge ci rancune jur haine mm-hmm. moo tax maanaam problème yi dañ koy teg ci kaw taabal yi di ko waxtaane lu mu métti métti mm-hmm. su ma la su ma mënta wax yow directement xam naa sa njëkkee parce que njëkkee loolu la ci wolof jubloon mm-hmm. xam naa say bokk xam naa say xarit ak donte secret couple desu ko divulgué mhm. mais léeg-léeg médiation mënu cee ñàkk ndax yàlla nee na fa baxaaku xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islahan yuwafiq laahu baynahuma loolu moo lay wan ne parfois nga dem wuti médiateur bu ñëw mënu cee ñàkk mhm. mais ànd ak loolu lépp il faut ñu cultiver mbëggeel après ñu jéem a yërmante jéem a jéggalante ak it maanaam la nation c'est le désir commun de vivre ensemble. waaye l'amour c'est le désir commun de vivre ensemble. amour moom duñ ci dugg parce que man daa point yi nga ci wax yëpp d'accord ma ci parce que man yi man su yi ma yaakaar ne mooy indi produit yëpp yëpp boo ko xoolee ba dajale ko ba indi ko. <laughs> problème bu bëggante la parce que nit ki soo soo yéen bëggantee te muy dëgg-dëgg si yéen. souvent léppam da koy mën a muñal. lépp <laughs> ngi sant yàlla bu baax. jërëjëf ñu ngi lay mhm. di di ñaanal bokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk diaspora te di ñu suivre. Mm-hmm. ñu baax a baax na suñu mbokk sëñ foode Diop ca ca ca ca ca états mm-hmm. suñu wëllëre la boo xamante ne ci yu mel ni lañ xamante waaye wax dëgg suñu diggante dem na ba weesu ñu yëpp wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ak yeneen bokk taalibe yu baax a baax a baax. ñoo leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar. di ñaan sëriñ Tuubaa mi ñu boole maanaam yàlla faj suñu ay aajo ñun ñëpp. di sant it sama xarit bopp yi. ñu mel ne sëñ Alaaji sëñ Xaadim Mbacke moom sëñ Daam Atta moom sëñ Ibra moom sëriñ Tuubaa sama wëllëre la boo xamante ne mënumaa wax ba pare te te dem ma ci moom muy géeju xam-xam yoo xamante ne it xam naa du ko nangu waaye su ngeen mënoon am ak moom jotaay incha allah dinañ ko def incha ak sëñ Fallou mi nga xamante ne moo ñu indi ak mboolem mbokk taal lay jaajëfal yow tamit sëñ Omar Bamba sa liggéey mayu la ko sa temps mayu la ko parce que ñu fàttali ne Dakar nga nekk di fa def liggéey bu am solo ba léegi bi nga ñëwee say say nit am di jàmm ñu ngi lay woo fu nekk mais xajal nga ñu ci sa temps euh, jël lu bëree bëri euh, di ko def ci al azhar touba point com xam ne euh, waaw sa mbir la ba pare ñu ñu bëri bëri dañ dañ dañ bàyyi xel di ci jàng def ay jàng jàngat yu bëree bëri ci li nga xam ne yaa ngi ñu koy yaa ñu koy baaxee ci ay waxtaan ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité boobu ndax lii lu bëri ñu bëree bëri soxal nañ ko ci yow mais doo doo ko nangu mais ñun moom chaque fois buñ la ci kii rek da ngay ñëw euh, def ci lu am am solo ñu ngi lay gërëm baax di gërëm tam mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon seetaan fépp ci biir réew mi leen di daje beneen yoon jërë ngeen jëf